jàng faatiha suratul ixlaas ñetti yoon salaatu ala nabi ñaan sunu borom mu nangu lu liggéey bi ci gën kaa sellil nangu ci ak mbaaxam maram te bañ noo topp sunu manqué ak sunu matali nangu ko xulandi ko boole ko ci jigéen mu gën a gërëm boole na ko nangu mboolem jullit yëpp tàmbalee yi xam ni ñoo sos lii ñoo waral lii ginnaaw bu ñu ko defee addi yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ba noppi bu ñu ko dégluwaat ko bu addi Sëriñ Tuubaa ñoom ñu koy tàmbalee ci kilifa yooyu nga xam ni ñu tàmbalee ci mam lay ang mboolem ay doom ang mboolem ak njaboot ak mboolem ay dëkkandoo ak mboolem jur yëpp yàlla yàlla nangu ko te def leen ci yoon noonu ñu koy taxawee itam yàlla yàlla doon na ko waxtaan doon na dokkee la taysiir doon na musal ci seytaane ak pexe bi saxal si rafet mustaqim ñu bokk bi teewal lu bare bare bari kenn bañ a manqué yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def ñun ko bokk liggéey ndax sa doom ci sa kon noo bokk ñun ñëpp yàlla ko yàlla jëfe kanam ginnaaw bu mu kanam boo ginnaaw loolu yi ni mu ko waxee rek gi jox nañu bis bi ci fi nga xam ne fi la war a tàmbalee ndax ki waral lépp mooy Serigne Touba ci Serif Lo ngir nemmi ko si sunu maam Dayloo moo ko fi moo sabab la ca aju lépp dama koy tënk rek ak ñëwam fii moo sabab lii waaye mën na ne moo sabab la neen lu baax la lu ñu tiitaroo itam kon nag ñu bàyyi ko xel bu baax boo fonk bokk na ci jox gi ko jox itte lu bokkul ak njàng bi kaamil bi ay gëstu itam dañ ko cee ndax nit ki itam soo ko bëggee màggal bëgg koo fonk war ngaa xam ku la ne kooku may kan nga ne mooy diw lan moo di ay jaar jaaram nga ne lii ak lii ak lii waaye ah ku ñuy màggal nga ne mag suñuy maam la ñuy màggal famille ko ci maam léegi ah suñu sax it waaye nag mënoo cee wax lenn loo xam lii mën naa tax ñu ne lii moo tax ñu koy màggal kon loolu moo tax def nañ ci ay gëstu yoo xam ni euh, sunu doom ji di sëñ Mbàkke Lo moo ko jiite def ci tëju sëkk boo ko mbokkam ma Xaadim Lo doomi sëñ Fall Lo ca ñu topp ci mbokk gi ak dëkkandoo yi képp koo xam ne am nga xam-xam ci sëñ Layloo wala nga xam ko ci ay doomam nañ fi nekke woon seen taarixu juddu ak seen seen taarixu gane àddina ak seen eh, taarixu bàyyi ko fi ak lañ fi nekke woon def na ci def na ci gëstu yu am solo bi ñu noppee itam ah nañu ko ñu ko war jox ñu topp ko ba lu ci war na aajeere jubbanti moo tax loo xam ne liggéey mu ayib la ñu muur ko ak téere téere bi leen ci jublu moo di gën a yaatal ak gën a leeral ci ma waxale téere bi mu ngi nii téere bi itam jaayuñu ko naam waaye bëgg nañu ko yàlla man loo nga fexe ba am ci benn kooku benn nusxa am loo ci barkeeloo loo xam ne dinañ ko mën a dimbali euh, ci mool bi ak bu jeexee buñ ko bëggee mu jàpp de ci araab nag lañ ko lii lañ ko bind. dañ ko tax a ko français hmm. bu ko laajee ñu def ko ndax. loolu mooy tax mu gën a yaatu bu baax def ko arab def ko français def ko wolof sëriñ Mbàkke loolu moo koy ni téere bi tudd as-siraajul muniiru fi siiratil muallimis kabir muallimil kabir a cheikh Laylo wa ba'du awlaadihi taarixu sëriñ Laylo ay jaar-jaaram ak lenn ci ay doomam kon nag ñu ngi koy yëgal bokk yi yëpp dina xam ne téere bu mën a am la nag ndax ay gëstu gi ci biir yoo xam ne yi ak ay kilifa ñu ñu ci tudd yoo xam ne ñu bari xamuñu woon ni ñooña jotale ñoom mbir mi dara kon nag na ko ñëpp fexe am loolu daal ci gàttal mooy wax ji waaw ah, la ca toppit moo di dañoo bëgg daana fekk subaane bu jot mm-hmm. kenn bañ a dem fenn julli ci jàkka dugg ci jàkka ji julli toog ñu def xéwal ndax xéwal noppi na maa jigéen na loolu ko loolu daal moom mooy liñ leen doon jotal te di leen sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal di leen xamal ne suñu xol sedd na guy yi ndax ah ni ñu ko wootee woon mel na ni mbooloo ma ne wuyu si ne noonu kon dañu ñaan rek kenn ku ne lu la fi tax lu la tax a jóg nga ñëw rek sunu borom.

dara doo ko fii ba bën fi dir soo ci déwén yàlla fi ñëpp yal na yàlla xéwalal ñëpp liñ fi wut ci yal nañ jot lu ëpp ci seen jot ci lool dama ko bëgg tënk nag ci bati gàtt maanaam alxuraan liñ fi jàng kamil yi liñ fi jàng ci ay xasaayit ci tax ñu koy topp ba am ba mu agsi fii ba Serigne Touba di ñëw tënk yooyu rek laa bëgg a tënk pour nit ñi gën ko mën a dégg ci gën a fànn moo di sunu maam lay ñoo di Serigne Touba la toppoo maam maam moo fi ndax ci alxuraan màgg ci kippaaru boo amee bis bii xam ne méngoo naa moom ma wax ne keneen ku koy wane Serigne Touba mi tax yëf yi lépp xew ñaata xasaayit ñoo fi génn xasaayit bu ne ak tarjumaanam ma ni lim fi lim ci ab lim ndax lu muy yéemu ci jëm ba jëm ji mu bàyyi ko Serigne Touba mi ko ku nekk dina xam ni teqale ko naan nit ñi ñu naan ñëpp a ci ñun ñi nekk fii ngeen jéggal ma waxee ni pour ci dëggul woon aw xasaay bu xaw a méngoo genn ci xasaay bi ñu naan ko man la mu ci fay dëgg ko dina la jafe ngeen baal ma ko sans fayam sans keneen ak sans keneen laa koy male kon sëriñ Tuubaa mi ñu koy tibbe te li des moo ëpp li ñu li ñu doon dañoo sàkk rek lenn nag ci liñ ci war a jël di mandargaal bis bi ne Sëñ Tuubaa moo tax lii Sëñ Tuubaa mu am maanaam yoon woowu nga xam ne ci la nit ñi jaar sunu maam moo na ko fi tali indi ñu ko maam lay loo moo jàngee ji ci maam war a andi sëriñ te bi mu fay jàngi fekkoon na mu xam ne mu war a xam waaye dafa doon da doon mottaliku ak di tarbiya loolu moo indi maam mu ñëw ci ñun doon sëñ Tuubaa bu sant ndax ndigal sëñ Tuubaa rek nga wut ak leneen nga wut kon mbooloo mi dajale ñu jaaree ko ci ñun ñu woo leen ñu wuy si ñu fekk ci ñu ànd noonu bis bi ñii def ci aw ñàkk ñii def ci am xel ñii def ci doole ñoo ñeeni dañu xam ne fa bis bi àgg ñoo ko fa àggale yal na leen suñu borom fay dëkk bii ñu koy fi def it mbooloom jullit yi fi ne te ay jullit àqal ñoo bokk benn bëgg-bëgg ñoo bokk benn bis benn bañ-bañ ndax luy dundal diine ak luy dàq seytaane rek loolu lañu loolu lañu fi nekk kon ñoo ngi ñëpp ñoo xam ne nii bokk nañoo ñoom ci dëkk bu ci wàllu lislaam bi ak ànd bi ñu àndoon mbir moom ñu ne kon àgg ba mu àgg fii te des lu bari ci kanam yàlla na ko suñu borom watt leen di sant ñi nga xam ni ay dëkk lañu ay jullit jóge fu sori ñëw ngir bis bi yal na leen suñu borom fay yal na yàlla leen am yiw te bu déwénee ji di jëm si yàlla nag am na ko ko gën xet ku fi amoon juróom ñeent fukki at it da nga bàyyi xel ni am yàlla dina la ci tegal am at moo dellu si waat mu jëlee nga fekke waat at mu nekk nag bu ñu ko fekke mën naa am kon bu defoon dañuy daal toog ko di sant suñu mbokk yi nga xam ni ñoo yor hôpital yi ak rajo yi yal na suñu borom leen da ngeen xéewal tey ji ak suba. organe bi ngay nekk mu dimbali leen seen tubaab yi dimbali leen ndax dimbalu seen tubaab moo tax ngeen yor pexe yi ba noppi nga ñu ko dundul am murid saa man wax sax ma ne ci ñoom yéen de ku leen seen ngeen di ñëw mu am fu mu leen mandargaal dafa leen mandargaal ab nit kon bokk jullit yi bokk taalibe yi seen imam di Basiir ak Bukuru Xayri def nañu lépp ba mat ndax kenn ku ne da nga am morso buñ la jox morso buñ la jox. ci ñoom liñ leen jox nag daa ma dale muy ab taalibe jàng ngeen ko ni ngeen ko war a jàngee lim bi bari na lool xasaay bi motti na ko daayira yi nga xam ne ñoo doon jàng xasaay yooyu ndaw yooyu nga xam ne ñoo ko doon jàng waxaan na ak xel matlabu sifaa yeeg nooru daayira yi nekk tey su la as rek yooyu boo jëlee benn bu ay mbuutam nga xam ne suñ tubaab bi mooy du du kenn waaye ndax rek la mu indi indi na ko mm. ndax am na foo xam ne boo fa àggee di nga xaw a kéemaane di nuyu suñu bi sëriñ Mouhamadou Laye Lo mi des ci tislaayu waa kër sëriñ Sahid ndax bu ñuy wax ni sëriñ Sahid daal mujj ci maam yi mujj na mujj kër sëriñ Tuubaa ndax sëriñ ma Fatim loo ko fa jiitu sëriñ Sahid so toppaat kon loolu ku ñu waxul ku ñu bindal ab téere yi ñu xam ne ñii te ñooñu lañ bokk waaw waaye nag téere yi day indi xam ne ko ak yéen ak fàttali kenn su borom ak leen ko nga xam daal kenn ku nekk foo nekk eh, yéen su borom tàmbal boppam dimbali leen ci xéewalam te suñu borom na lu ne yàlla lu defal fan gudd ànd bu wér ndax yàgg fi kat day indi ak ak tuub te suñu borom kon daal daa yéen maa def ci waa Serif ak suñu ndaw ya ngi leen di gërëm di leen sant. xam naa nag mbir boo koy tàmbali ku ne boo leen jàng tamit ma di bachirul loolu ak imam ak mamadul xayri ak se ak seen tijaani jigéen ak ñi ko ñu ko langoo waaye bu ne àggee ci beneen sànn gi ñoo ngi ñoo ngi sant bu baax sëriñ teelalu ak sëriñ bu mooy dafay lu ak seen yokk di nga ànd ndax bis bi nga saa bu ñu tilaangee ñoom ba dem di dem bu ci xel mu rafetee ñu ko yor lu ci am ndigal dinañu ko joxal lu lislaam bëgg dañ ñu ko won lu lislaam bañ dañ ñu ko tàggale tey buñ noppee kenn mënu leen ci ci doole yooyu na leen la ngeen fi lu ci waay def yéen yàlla ful ko ba mu ne ak géej suñu borom am na ko maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp dem di ñaanal suñu mbokk yi ñi tey jëlee Assane ak ñi dëkk na ci suñu xur ak kooku ci def fu mu ne na suñu borom taw fexe leen ndax ñoo ko bokk benn famille lañu benn famille lañu te ku nekk ci njaboote waat nga ci biir yeneen sant yoo xamante ni ñoo yaatu kon maa ngi gërëm ñëpp di sant yëpp na ngeen ma jéggal nag ndax doomu aadama boo xam daa matu te jox ko lu muy nett yi ak itam di wax ci xolam mën naa am léeg-léeg mu rémb loola mbaa mu ëpp mbaa mu yées ko kon yéen si masala mottali na ko defal na ko suñu gën a rafetee defal na ko ci dem fekk ay diw yu bëri bëri. léegi gërëm ñu si salaamaaleykum wa rahmatulah. Yeah. تجري الأقدام ولا الكتاب والحديث بالبصر لي وآتاني ما خير رزق